biñ ne suba la feetu indépendance lii leen ci jàppoon. je reste ouvert au dialogue. ci ñi nga xamante ni dañuy politique. il nous revient de puiser à la source des anciens la sagesse qui inspire le dialogue et la concertation. muy waxtaan woo xamante ni benn pàcc ci société civile bi àndoon na ci. ñu ngi wax opposition bi ngir ñu ñëw ànd ak président Macky toog waxtaan. ngir tabax lu mag loolu yëpp. ci respect à Sénégal ak ay institution opposition di ñaxtu wante président Macky Sall ci jouru Korité danaka daf ko répété waat. renouvelle. maa ngi woo ñëpp ñu waxtaan sottante xalaat loolu yëpp nag dañ koy def ci respect ak fonk charte réew mi. dans le respect de l'état de droit. waa nag nee nañu ñoom suñu gëm-gëm wàccuñu ci ñun soxlawuñu dialogue problème bi boo demee ba ci biir a mbirum troisième mandat la. muy ay wax yoo xamante ni kii di président PRP di Déthié Fall ak ku bokk ci F24 ànd nañu ci ngir waxtaan foog ñu xam lu ñuy waxtaanee ñun am nañu ay conditions xam na ni président du bokk te loolu fokk rek ñu réglé ko moonte de fii daanaka lu niroog dialogue la ñuy gis ci photo yi opposition bi nekk ak président Macky Sall bu yàggul woon dara lii kenn mënu ko woon xalaat. amoon ay ñaxtu léegi mu mel ni lu dal ndax waxtaan wu ñu sumb daanaka mu tasaare ñu nga xamante ni ñoo nekk ci politique bi. benn boor libéro yi réew Rewmiste yi ak ñi bokk ci xalifa Sall beneen boor bi ñi àndul ci dialogue bi féete ci Ousmane Sonko. xalifa su demee ci dialogue mënul bett kenn. bon wante nag conséquence bi mooy diggante moom ak Sonko mais du dem comme ni mun naroon waroon demee. yeewu askan wi nag génne nañu benn bataaxale di tuumaal ñi nga xamante ni ñoo nekk palais li ñooma ñoo créé lépp ngir dialogue bañ a